billahi min alsheitaan irrajim bismillahi irrahmaani irrahim alhamdulilahi rabilalamin wassalaatu wassalaamu ala alhaadi alamin sayidina muhammadin ilmakin wa ala alihi wa ashaabihi ajmaina ixwata alimaani wal islaami wal ixsaani wal iraadati assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokki M-Media Group Nuuru Daarayni ñu ngi sant yàlla subhaanahu wa taala di julli ci yonentem boobu sallallahu alayhi wa sallama di leen ziyaare di leen ndokkeel di leen baal xaq di ñaan ngeen baal ñu xaq di ñaan yàlla subhaanahu wa taala mu nangul ñu suñuy jaamu yàlla te jéggal ñu suñuy rëcc rëcc bi jaay seydna muhammad sallallahu alayhi wa di ñaan yàlla subhaanahu wa taala weeru barkeel wu màgg wi nu jubal muy weeru koor yàlla àggalañu ceeg jàmm ak wér ak fekkeek tal ak kàttan gu ñu ko mën a taxawe ci wàllu jaamu yàlla gu màgg googu muy woor ko di jaayi sayyidil wujud sallallahu alayhi wa te lépp luñ ci def ci jaamu yàlla rek yàlla nungul ñu ko fajal ñu ci suñuy aajo zahiran wa batinan adduna ak alaaxira di ñaan yàlla rek yàlla gën ñu cee dimbali may ñu kàttan gi ndax weer wu am solo la wu rëy wu màgg woo xam ne bii dañ ko war a bàyyi xel bu baax a baax ndax lépp lu jullit di def ci jaamu yàlla rek dafa am solo lool rëy lool màgg lool waaye nag weer woowu moom yàlla da ko jagleel ay ngëneel ak i tawféex ak i teraanga yoo xam ne yii ñeel nu nun jullit ci lépp luñ ci taxawee ci ak jaamu yàlla rek mu yokkal ñu ko fulal ñu ko euh, gën caa feeñal yërmandeem lool gën caa euh, lool gën caa feeñal kontaanteem lool kon daal noonu mun ko sante ne koo xam ne kii teewe nga weer wi man yàlla ci sama coobare may naa la ba nga fekke weer wi na ko woor loolu ndigal la loo xam ne lii nañ ko dégg bu baax a baax te jéem caa góorgóorlu xam ne lu rëy rëy la lu ama am solo la waaye yal nañ ci yal nañu yàlla musal ci seytaane ak i pexeyam ak i àndandoo seytaane ba mu bañ noo gàllankoor jaamu yàlla gu rëy googu ndax bari na lool lu ci seytaane di defam pexe yi ba ñu baree baree bare dinañ ko sàggane ba mu di jàll di raw ñu bañ ko jëfandikoo comme li ci war muy koor gi te dara sababu ko lu dul métti gu métti euh, seytaane jaare ca euh, nax lañ ci yan ci yàlla musal ba tax ñu woyofal ko di ko sàggane ta sàggane ko te man ko woor moom dara jaru dara jaru ko dara jaru ko yàlla nañ ci yàlla doole jàppale bu baax barke Seex Xaadim di jël nuyoo boobu rek nag kon ak euh, ziar boobu di ko teg ci loxol kilifa euh, liggéey bi muy Cheikh Abdoul Ahad Mbacké euh, di ñaan yàlla rek doole ko jàppale doole ko dimbali ba li mu liggéeyal islam lépp mu mën koo liggéey dana ànd ko moom bi jaay sina Muhammad sallallahu alayhi wa mu jot li ñu nuyoo bu mboolem mbokk yi ñu bokkal liggéey bi rek ñëpp rek góor ak jigéen ñoo ngi leen di nuyu nuyu boobu di leen ziyaare di leen tokkeel ci fan yu sell yi nga xam ne yi moom lañ nekk di ko waajale weeru màgg boobu nga xam ne bi mi ngi suñ kanam kon tey xam naa ñu jéem a tàbbi ci liggéey bi rek di jéggul mbokk yëpp waaye tamit di ndokkeel mbokk yi nga xam ne yi ñooy boroom xam-xam yi ci biir ak boroom xalaat yu rafet yi ci biir te di jàpp ci liggéey bi saasu ne ci fànnu jàppin wu ci yàlla rek ak wu koy gën a jëmale kanam rek ak wu koy gën a yokk rek ñu di ci jàpp loolu lu ama am solo la lu rëy rëy la eh, yàlla na ci yàlla gën a jàpp bu baax a baax a baax muy boroom xam-xam yeeg eh, jëwriñ yi féete woo wàllu alxuraan jekk ñiy jàng xasida yeeg ñëpp daal ak ñi ciy tàbbal seen xalaat yu rafet ñiy ziare ñiy ndokkeel ñëpp ñiy teewlu tey jot seen teewlu boobu ci biir liggéey bi yëpp daal yàlla na yàlla doole defal tawfeex ba liggéey bi àgg fu kawe suñu njorto bi jay seydina muhammad sallallahu alayhi wa kon fatwa bi tey te mooy tontu laaj yi dañ ci jëkk rek laaj yi nga xam ne yi moo fi ñëw tey te yi ci jëkk jóge ci e, kilifa gi e, sëriñ Mbay Jaañ ñoo ngi koy ndokkeel bu baax di koy xamal ne ko namm nañ ko gëj nañ koo dégg waaw e, moom mu ngi laaj daal lu jëm ci loolu ñuy wax al ashhurul xurum al ashhurul xurum daal lay laaj Euh, mooy yan weer euh, waaw yooyu waaw weer yooyu muy weer yu ama am solo weer yu nga xam ne moom la ci yàlla wax ne inna iddata shuhuri inda allahi isna ashara shahran fi kitaabillahi yowma xalaqa alsamawati wal arda yooyu mooy weer yi nga xam ne yii yàlla bi muy wax limab weer yi nga xam ne yi moom la bind ci coobareem defal ko ab lim muy fukki weer ak ñaar da xaj ji ñeenti weer tudd leen tudd leen weer yoo xam ne yi moom lañuy wax al ashhurul xurum al ashhurul xurum nag bu ñu koy tënk rek mooy rajab la ak zul qeadati ak zul xijjati rajab zul qeadati zul xijjati muharram maanaam dadi ñetti weer yoo xam ne dafa tegaloo ak benn boo xam ne mi dafa xàjjaloo ndax booy xool bu fekkee danga nga tàmbalee ci rajab ay weer dafay jaar ci diggante bi muy ndey koor eh, jaar na fi baraxlu jaar fi aw koor jaar fi diggu tabaski doog a ñëw eh, aku tabaski aku tam xarit kon daal ñeenti weer yi nga xam ne moom la wax al ashurul xurum daal mooy rajab ñu koy wax ndey koor euh, zul xiyaadati di diggu tabaski ak zul xijjati di aw tabaski ak muharram di aw tamxarit waaye nag weer wi mu ci tudd muy sawaal moom bokkut ci al ashurul xurum kon weer yu tedd yooyu yu baax yooyu yu am solo yooyu ca la xaadim rasul nafaana allahu bi barakaatihi wa waxaan waxam ju rëy wax calu lu baree bari nag ñu gis ci bayit bi tey mu ne bushra lana xad ataana al juudu wal karamu lama stahalat alayna al ashhuru al xurumu cheikhul xadim dafay wax ci weer yu am solo yooyu ne ñun de yàlla sunu borom subhanahu wa taala defal nañu mbégte mu rëy rëy rëy bi nga xamee ne weer yooyu ñu tuddee al ashurul xurum feeñ na ñëw ci ñun fekk nu ci àdduna ñu ànd ak moom di dund ak weer yooyu daa ne weer yu se sell yooyu yu mag yooyu nag bi mu fenkee maanaam bi mu feqee feeñ ci àdduna ànd ak ñun ñu koy dund weer yooyu barke ba ci yàlla def ak xéewalee ci yàlla def euh, teraanga yi daal euh, ñoo ngi koy sant yàlla bu baax a baax ci am ci mbégte gu rëy goo xam ne gi euh, la ñu ko wone yàlla mooy di ca góorgóorlu ci lépp loo xam ne fan nag jaamu jaamu ko la moom yàlla waaye di ca boole ca des kon daal ne am na mbégte ak kontante euh, ba nga xamee ne weer yooyu fenk na ñëw ci àdduna nu jamono te moom di ko dund daadi di wax ci lenn ci xewal yoo xam ne amee nañ ko ca weeree mu ne xusna mataban maal xufraani fi rajabin wa nartaji fil bawaaxi raw daman xurimu sëriñ bi ne xusna mataban maal xufraani fi rajabin weer yi nga xam ne moo jëkk ci al ashurul xurum te mooy rajab ne am nañ ca euh, njëggal ak yàlla ak euh, mu nungu suñuy tuub ci barkeeb weeru rajo boobu nga xam ne moom lañuy jiital ci al ashhurul xurum te it ne ne wa nartaji fil bawaaxi rawda man te ne ne yeneen yi ci des muy ñett yi tamit ñoo ngi ci yaakaar mu tàggatal ñu ñëpp ñu nga xam ne ñi maanaam dañoo wedd yàlla gëmuñu ko mel ni dañ leen a xañ maanaam dañoo xañu maanaam dañoo ñàkk yërmande yàlla dañoo sori yërmande yàlla mu ñu ko gëmut doon yéefari daal sëñ Bàmba ne na noo ngi ci yaakaar ci barke ber yooyu mu tàggatal ñu ñooñu nga xam ne ñi dañoo wedd yàlla gëmuñu ko kon laal loolu lenn ci tënk ci al ashurul xurum yooyu nga xam ne yii moom la doon laaj beneen laajam bi ci topp muy laaj lu jëm ci wàllu soxna yi nga xam ne seeni borom kër da leen a jiitu bar sax maanaam dañu leen a jëkk faatu ñu war leen a tënj maanaam ñu war leen a defal idda nga xam ne dañoo war a toog ñeenti weer ak fukki fan yoo xam ne yii dañuy wàññi seen doxa bu baax a baax ak seen ak génn waaye tamit wàññi seen defaru ci seen wàllu yaram ci wàllu taarak yooyu bu baax a baax te war caa gën a góorgóorlu yokk seen ak jàmm yàlla bu baax a baax dana soxna yu da cee seetlu ne maanaam ñooñu di tënj bu nit ki faatoo euh, ñoo ñu doon ay soxnaam mbokk yi dañuy wut jëmm joo xam ne ji góor goo xam ne kii maanaam ku bokk ci mbokk mbokkam la kii faatu ñu féetale ko soxna soosu wala soxna yu maanaam loolu lañuy ñuy wax solal yaakaar naa loolu nag moom buñ koy xool wax dëgg noo ngi ciy gëstu euh, lu xaw a yàgg lool waaye ci wàllu fiqh bi daal moom euh, fin ci tollaguñ ci gëstu daal gisaguñ fenn foo xam ne fii féetale googu ñuy féetale ko euh, kooku walla soxna soxnaam euh, gisaguñ ko ci fenn fu ñu mën a tegtaloo ci alxuraan wala xadis muy sunna wala waxi boroom xam-xam yi kon wàll googu daal kon man niñ koy jàppe daal man na ci fan ci tolloogul man nañu ne aadala joo xam ne jëlal xañ na mag ñi euh, lañ ca doon jublu di ko def xam naa lu baax la ak lu rafet comme noonu mu ko waxee waaye dëgg dëgg cësalaayal maanaam mën nañ cee wax daal ne nii la fa demee moom loolu euh, amaguñ ko ñoo ngi defi gëstu nag ndax euh, dañuy gëstu moom wax dëgg yàlla euh, te loolu moom gisaguñ ko fenn daal foo xam ne fii mën nañ caa wax ne lii moom nii la demee dëgg dëgg dëgg kon daal aada la joo xam ne jii moom bu dee ci wàllu charia rek daal maanaam gisaguñu tam comme noonu muy demee noonu comme féetale googu daal ñu mën cee am benn cësalaay xam naa njàngale mag ñi nag moom boo ci waxtaanee ak ay mag toog ak ñoom xañ na ñu ko dund dëgg dëgg xam ko xam cosaan la man naa am buñ la ci leeralee dina dinañ ci gën amee luñ ci xamee yeneen laaj yi ci topp mu ngi jóge ci sëriñ Alioune Badara njaay oustaz mbal bi ñoo ngi koy seer moom itam ba tey rek beneen laajam bu njëkk bi di aju ci Euh, fatwa ba la ñu defoon dimanche ba la jàll te doon ci wax euh, ñaan gu am solo ko nga xam ne gii moom lañuy ñuy ñaanal mbokkum jullit mu fi jóge ci buñ leen di waajal ci di leen jullee julli ko nga xam ne gi euh, dafa am ak ñaan te bu dee ci waxi arab bi ñaan gi yaatu lool wuute lool ci niñ ko war a waxee bu dee ni góor génn góor la bu dee genn jigéen bu dee ñaari góor wala ñaari jigéen walla góor ak jigéen bu dee mbooloo mu góor bu dee mbooloo mu jigéen ba tey sëñ Badara indiwaat ci foofu ab laaj bopp mi ngi aju ci naxwu ba tey muy grammaire arab muy damiir ñu di ko wax damir maanaam muy ñaari baat yoo xam ne mooy huma la ak hum comme masalan mu ne allahumma xfir lahuma ak allahuma xfir lahum mu ne daal dafa am mbokk yoo xam ne yuy waxtaan nañ ci xalaat ci def ci débat ba ne xañ na kon mën nañ ne allahuma xfir lahuma mën naa weccee ak allahuma xfir lahum waaw foofu nag liñ ko fi wax mooy loolu moom xawaay du nax wi nungu ko maanaam kom nga ne allahuma xfir lahuma bu dee ñaari nit ak allahuma xfir lahum bu dee mboolo la ñu ne bu ci nekk mën na wecc moroom ya déedéet xawaay dum ndax moom nunguwut loolu euh, waxut loolu itam ndax ñoom ni mu waxe ne loolu lañ jàppe ne ñoom ñaar mën nañoo weccee mooy ñoom ji nga xam ne ñi moom lañ ci wax comme boo nee ñoom loolu ni olof de waxe naan ñoom su boobaa it wax ji day tënku day lënt du leer ndax ñoom da ko mën a jë jëmale ci ñetti ñett ci ñett nga ko mën a jëme muy danga naan ñoom ñaar wala ñoom ñu góor maanaam ñoom mbooloo mu góor walla ñoom mbooloo mu jigéen saa boo waxee ñoom rek euh, boo ci baat yooyu benn ci euh, duñu xam ñoom ñooñu ñaar nga ci wala mbooloo mu góor wala mbooloo jigéen loolu tax booy boo demee ci grammaire bi muy naxu bi ay damir yu leer nañ ñi la ko tegal yoo xam ne yii boo waxee ñoom ñaar ku dégg arab bi dina xam ne ñaari nit ngay wax boo waxee mbooloo mu góor it dinañ ko xam ne mbooloo mu góor dong la waaye boo waxee mbooloo mu jigéen it dinañ xam ne mbooloo mu euh, jigéen la comme boo noonu allahumma axfir lahuma ki dégg arab moom da xam ne ñaar ngay waxal waaye boo ne allahumma axfir lahum ki dégg arab bi da xam ne mbooloo mu góor a tax ngay wax waaye allahuma xfir na itam ki dégg arab bi day xam ne mbooloo mu jigéen moo tax ngay wax kon euh, allahuma xfir lahum daal ak allahuma xfir lahuma mënuñu weccente ku ci nekk da nga am sa damir ak bopp nga xam ne gii buñ koy sarf di ko soppi yow damir googu na nga ko war a jox euh, feexlu bi nga xam ne bii maanaam da ko jagoo ñoom ñaar mënuñoo weccente naxu nag muy garaameeru arab boobu dafa mënta ñàkk ci kuy jàng nga jëm ca góorgóorlu nag xam ko ba mën a ràññatle baat yi mën koo taqale ba baat bu nekk nga mën koo waxe na nga xam ne nii na lañ ko war a waxee loolu taxoon xaadimu rasul waxan ca waxam juré ja moom itam ci bi muy eh, bind ci wàllu naxu xam nga xaadimu rasul ci lu bind wax ca rek lu ama am solo la lu rëy rëy loo xam ne lii bu ñuy xool sax day fekk ne ku kuy jàng arab rek boo xool euh, jàng grammaire boobu xam ko maanaam du mën a ñàkk ndax xaadim rasul dafa wax ne xamdan liman jaala fil kalami an nahwa mithlal milhi fi taam xaadim rasul dane ma maa ngi sant yàlla mi nga xam ne nii jël na grammaire naxu naxu arab mu def ko ci langu arab moom naxwu mel ni xorom ci aw ñam xaadim rasul daal ne ne naxwu ci waxi arab maanaam ci wax boo dee wax araab mu ngi mel ni aw xorom xorom ci aw ñam ku nekk xam na ne xorom ni mu amee solo ci aw ñam xorom bu fekkee ne dafa ëpp ci aw ñam ñam wa daal di jagari maanaam dootut normal waaye xorom bu manqué ci aw ñam itam ñam wa day daal di am sikk day daal di manqué noonu nag la naax mu mel ci langu arab bi bépp baat boo xam ne bii da nga caa yokk loo xam ne lii waru caa bokk yàq nga baat booba waaye bépp baat boo xam ne bii da nga wàññi loo xam ne lii da caa bokk waroo mun munu caa waru caa wàññeeku baat boobu day daal di yàqu loolu tax noonu mu ko misaale daal ku xam xorom ni mu mel ci aw ñam ci bu ëppee ak bu manqué xaadim rasul ne ne naxu mii muy grammaire noonu la mel ci wax kon ñu war cee mën a góor bu baax a baax dafa am solo lool nag dafa am dafa dafa leer yaatu lool noonu mu ko waxee nga xam ne mënta ñàkk ci làng bi nga xam ne wax dëgg yàlla solo yàlla dafa fi tawfiix ba nga xàmmee xawaa yooyu ci làngu arab bi moom euh, mën nga ca xaw a xóot lool sori ca lool bi bi wa husni tawfiixi yal nañu yàlla doole defal tawfiix beneen laajam bi ci topp muy sëñ Badara Njaay ba tey mu ngi laaj wàllu fiqh ba tey lu jëm ci wàllu julli la muy day laaj sujudu yi boobu ñuy wax te mooy sujjóotab ku juum ci julli eh, yan juumte la mën a defar ci ak julli foofu dañ koy wax ne ko sujudu sahwi ku juum ci sunna julli loolu la sujudu sahwi di defar maanaam kiy julli juum ca sunna ya muy daa wàññi ca sunna ya wala mu yokk ca sunna ya loolu la sujudu wi di defar waaye li nga xam ne ni moom la ñuy wax ponki julli te mooy farataya yooyu sujudu sahwi mënu koo defar farataya wala ponki julli ku ca juum yokk ca wala nga wàññi ca loolu moom bu fekkee ne lees mën a dabaatal la dañ koy dabaatal ci biir ak julli waaye sujudu sahi moom mun mënta defar ponk wala farata ci biir ak julli sujudu sahi daal maanaam ki xam ne kii maanaam dafa wàññi ñaari sunna yu oyof ci julli wala mu yokk ko wala benn sunna bu dëgër bu ñu feddali eh, mu yokk ko wala mu wàññi ko loolu la sujudu sahwi di defar maanaam sunna yi dañ leen a xaaj ñaari xaaj dafa am sunna yoo xam ne sunnatun xafifatun lañ koy tuddee muy sunna yu oyof ak sunnatun mu akkaranu sunna yoo xam ne dafa dëgër dafa feddaliku sunnatun xafifatun nag ku ca bàyyi ñaar walla nga yokku ca mooy waral sujudu sahwi waaye sunna mu akkara ku ca bàyyi benn wala nga yokku ko ci ci ci njuumte mooy waral sujudu sahwi looloo tax boo ànd ak imaam bu imaam juumee ci yooyu maanaam ci sunna yi maanaam moo la ko yóbbaale buy sujud sujudu sa da danga cay ànd ak moom waaye bu fekkee ni da nga topp ci imaam yow nga yàq ca ponk ya muy farata ya yow loola imaam moom du ko gàddu yow yaa koy gàddu kon euh, ni ñuy def daal bu fekkee ni ca ponk ya moom la ñu yokk wala ñu wàññi ca euh, rakka boobu nga xam ne bii danga nga caa juum ca farata ya moom danga koy dabaatal loolu nag ni koy dabaatale mooy masalan bu fekkee ni da taxawal julli ah, rakka bu njëkk bi nga julli ko dem ba ca sujjóot ya maanaam nga sujjóot benn sujjóot daal di jógaat taxaw ah, daal di fatleku ne ah man kat rakka bii ma julli di maanaam sujjóotuma ca benn sujjóot rek laa ci sujjóot des na benn su booba dañ la da ngay toogaat sujjóot sujjóot boobee daal di jógaat dugg ci ñaareelu rakka boobu waaye boo bàyyee sujjóot boobu ci rakkaam bu njëkk bi dem ba dugg ca rakkaam ñaareel ba ba jàng faatiha aku saar wala faatiha maanaam ba rukkoo ba siggi su ngay dogu fàttaliku ne man kat rakkaa bu njëkk bee sujjóotuma ca su boobaa rakkaa bu njëkk boobu da koy dindi danga koy bàyyi danga koy effacé da koy jàpp ne maanaam loola du rakkaa te rakkaa bu ñaareel boobu nga ko fàttalikoo ginnaaw bi nga rukkoo waaye nga daal di koy remplacer rakka bu njëkk boobee euh, jum ci ponk daal te mooy farata dañ koy dabaatal su dabaatal ga weesugut dabaatal gi nag dafa am fu mu toll mooy boo duggee ci sa ñaareelu rakka fàttaliku ne yow bàyyi nga ponk ca rakka bu njëkk bee te rukkoo goo bu booba da ngay dem dabaatal ko continuer sa rakka boobee waaye nag soo demee ba rukkoo doog a farleku ne man kat bàyyi naab sujjóot ca rakkaa bu njëkk bee kon rakkaa bu njëkk ba jàllatut da nga koy bàyyi te sa ñaareelu rakkaa boobu nga def ko sa premier rakkaa noonu daal la ñuy dabaatale ponk julli yàlla na yàlla defal tawfiq bi jaay sina Muhammad sallallahu alayhi wa ذاك يودا وهو ذاك يودا لا وهو يودا فتاوى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 sëriñ bi doon sëkk tey ëllëg kon nag nañ ko fas yéene nañ ko fas yéene liggéey liggéey